revue de presse bi ñoo ngi ci ànd ak Serigne Kamal Serigne Kamal nag Serigne lasraar bu yàlla baaxal la Serigne bi nag yàlla may na ko lool ci wàllu seet listixaar ak nopp képp koo xamante ni da nga am koy bëgganteeg sëriñ bi nag doxul ci caaxaan soo ko bëggee takk soxna la wax dina la ko noobal ba ngeen juboo seen wërsëg dëppoo waaye sëriñ bi tamit dina yëngu ci wàllu faj rawatina tawat yi nga xam ne ñoo sonnal askan wi bu ci mel ni imorid ndoxum siti ba ci néew kattan ci sunu mbokku góor yi waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu këyit moo xam nga nekk ci réew mi di lijjanti ay kayit mu jafelal lool soo ko woowee incha allahu na caa def saafara rawatina sunu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ca bitim réew am fa ay jafe-jafe ci wàllu kayit képp ku ko woo rek bu leen yàlla dëppalee incha allah di nga am saafara ci sa tawat boobee sëriñ bi nag ku bëgg a jokkoo ak moom numéro yaa ngi nii may waaj a lim muy 77 541 08 85 ma baamtu ko 77 541 08 85 beneen bi di 78. 451 74 40 numéro yooyee la ñu mën a jotee Serigne Kamal nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal képp ku jokkoog moom yal na sa aajo faju ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay Pape Matar Sarr ak Nicolas Jackson le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñoom ñaar ñépp nag tey seeni club dañuy jongante bu dee Pape Matar Sarr ànd ak waa Tottenham ñoom Wolverhampton la ñuy jàkkaarlool match boobee trois heures lay door Pape Matar Sarr li mu bëgg moo di boot waa Tottenham ànd ak ñoom ñi am ndam lu ama am solo bu dee Nicolas Jackson bu dix-sept heures et demi jotee ñoom mën Manchester City la ñuy jàkkaarlool Nicolas Jackson nag li mu bëgg ca match boobe moo di doxal dugal loolee la surnal bi xam xamle bu dee ca France moom suba incha allah doomu Sénégal yi nekk ca Metz ñoo ngi leen di xaar googe googee Montpellier lay jàkkaarlool suba nag li waa Metz bëgg ànd ca ak doomu Sénégal ya fa nekk moo di am ndam ndax jamono jii ñoo jël avantage li ñu bëgg moo di am ndam mën a noyyiwaat ànd ak doomu Sénégal ya fa nekk mën nañu ca lim Lamine Camara ba ca Cheikh Tidiane Sabali journal bi tamit ñëw na ci équipe nationale bu Maroc ñoom nag ginnaaw bi ñu juboo ak équipe nationale bu Mali war a amal match amical bëgg-bëgg bi ñu am moo di jàkkaarloo ak équipe nationale bu Sénégal cib amical jamono ji fédération bu Maroc ci loolee la ñuy liggéey journal bi tamit ñëw na ci Saudi Pro League bi waxoon nañu leen ne Edouard Mendy ànd ak waa Al Ahli démb dañ doon jongante ak Al Uhud waaye match boobee kat dañu caa daanu ñetti bal ci ñaar lañ leen gagné Al Ahli laata match boobee di jeex nag dañ caa am carton rouge loole bokk na ci li tax ñu nërmeelu waaye Saudi Pro League boobee dañu koy wëyal tey jii bu cinq heures jotee ñancoo Sadio Mané ànd ak waa Al Nasr Al Fatih la ñuy jàkkaar lool waa Al nag li ñu bëgg moo di am ndam yokku point yi nga xam ne moom la ñu jiitoo Al Ahli ñoom nag ñoo topp ci kaw Al Hilal bu ñoom Kalidou Koulibaly loole la surnal bii di stade yéene xam le waaye surnal bi tamit fàttewul équipe nationale beach soccer bi coupe du monde bi door nañu ko équipe nationale bi démb la jongante matsam bu njëkk Bélarussie lañ doon jàkkaarlool mu gañe ñu juróom benn bal ci ñeent kon ni ñu duggee ci mbir mi baaxut waaye nañu ñaan fàtte ko match bii di ñëw Colombie la ñuy jàkkaarlool nañu ñaanal nationale bi mu am ca ndam ngir mën a am yaakaar des ci coupe du monde but sa kër boobee. ñu jugee Sénégal wutali France fek fa l'équipe 1 moom waa olympique bu Lyon bi kenn mënul tee jamono ji la fësal ca wu njëkk wa démb Nice lañ doon jàkkaar lool bett ko gañe ko benn bal ci dara nam waan Lyon sonn nañu lool ca match boobee waaye li ëppoon solo mu di ndam ñoom ñoo ko am waaye journal bi nee na waa Lyon nag sonn nañu lool lépp lu mburu di daj cib taal ñoom daj nañu ko ci match boobee boobee waaye kat li amoon solo moo di ndam jamono ji nag Lyon noy waat na bu baax ndax ña nga ca onzième place ba maanaam fukk ak benneelu placeu Ligue 1 bu France te Ligue 1 bu France boobee bi muy xaaj Lyon moo jëloon avant ndaare waaye jamono ji moom jugaat nañu te ñoo ngi noyyi bu baax ndam li ñu am démb nag am na solo lool waaye ñiñu ñu doon jàkkaar lool di waa Nice ñoo ngi ñaxtu nee nañu arbitre bi moo yàq seenu match loolee la waa Nice xamle ànd ca ak keprenturaam waaye li amoon solo di ndam waa Lyon ñoo ko am démb ànd ca ak la Lacazette ñu jugee l'équipe 1 jël l'équipe 2 moom waa Paris rawatina Kylian Mbappé la journal bi fësal ca wu njëkk wa retour à l'ordinaire jamono ji nag coow li jeex na tàkk bërki démb Kylian Mbappé dafa wax président wu Paris ne ko saison bii ñu nekk bu jeexee damay juge fii ci Paris loolee nag yëngaloon na planètu football bi coow li nag jamono ji jeex na nañu jëmbat fulla ci li des ci saison bi tey jii ñoom waa pari dañuy jàkkaarloo ak nant match boobee vingt heures lay ballon d'or Kylian Mbappé démb dem na ca entraînement ba saafonte ak ay farandoowam li ñu bëgg tey ji moo di jàkkaarloo ak Nantes am ndam ci seen kaw ginnaaw bi mu joxee xabaar bi waa Paris loole la journal bii di l'équipe xamle ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Xabi Alonso la journal bi fësal ca wu njëkk wa kii wax ci moom nag moo di Jürgen Klopp mi tàggat jamono ji Liverpool ndax gaañi dañu ko ca laaj mu ne Xabi Alonso de coach bu mën la muy def la loole li koy firndeel moo di ca Bayer Leverkusen ga mu nekk ma ngi fay doxal di fa amal ay jaloore te moom mii di Xabi Alonso dafa bokk ci coach yu bees yi nga xam ne ñoo nar a soppi football bi indi waat ci yeneen mbir yu bees tàq maanaam soppi football bi indi waat yeneen mbir yu bees tàq waaye gaañi ñi nee nañu ko est-ce que mën naa ñëw fii wuutu la mu ne loolee lu mën a nekk la li muy def mën na ko te min na club bi waaye rumeur yooyee am jamono ji maanaam coow li am jamono ji ñu naan dina ñëw wuutuma fi am du ñëw wuutuma fi su amul woon rek dina ma bett ndax coach bu mag la dina ñëw fii wuutu ma fi am du ñëw fii wuutu ma fi loolee dinañu ca xam dara waaye lu mën a nekk la loole la yogoon club xamle Xabi Alonso nag jamono ji mooy tàggat Bayer Leverkusen ay jamono nekkoon na ca Liverpool di doxal ca milieu de terrain ba jamono ji tamit waa Liverpool ñoo ngi koy bàyyi xel journal bi tamit ñëw na ci waa Manchester City kii wax nag du kenn ku dul Pep Guardiola waaye moom day tontu ki muy tontu moo di Gary Neville Gary Neville nag ay jamono joueur la fi woon nekkoon ci mën Manchester United waaye jamono ji consultant la mi ngi ci ab télé moom dafa wax ni mën Manchester City li ñuy football rafetul dara jamono ji ci loolee nag ci la ko Pep Guardiola di tonte Pep Guardiola nee na ko dafa xamul li ci football di jël ay coupe rawatina saison bii ñu génnee ñun waa mën Manchester City dañoo tegale ay coupe coono boobee moo ñu jàpp loolu la xamul nag waaye ñun li ñu bëgg moo di jëmbat fu jël ay coupe sunu dox ak sunu ñàkk dox sunu football bu rafet ak sunu football bu rafetul loolee yoonam nekku ci moom Gary Neville loolee la Pep Guardiola xamle Mikel Arteta wit mi ngi ci journal bi moom nag li mu bëgg moo di ca Arsenal googee mu am fa ay ngën indi jour ñu doxal mi ngi bàyyi xel sax bu baax Kylian Mbappé ndax Kylian Mbappé xamal na waa Paris ne leen daf fay jugee ko ñépp nag li ñu jàpp moo di Real de Madrid la jëm waaye moom Mikel Arteta mi ngi koy bàyyi xel nee na pourquoi pas Kylian Mbappé xaatim contrat fii ci Arsenal ànd ak ñun doxal ñu juge Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene kay Kylian Mbappé le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tout convenable Kylian Mbappé nag bu ñu sukkandiku ko ci journal bi teg na lépp ci yoon ngir jóge ca pari dem ci Real de Madrid loolee nag journal bi nee na dëggal na ko wax waa Paris ne leen damay bàyyeekoo ci seenub club ci juróom benn mbir yi nag la ko Kylian Mbappé teg maanaam ci point yi ci la Kylian Mbappé tegu ngir jaar ci yoon ba yegg ca Real de Madrid ci jàmm waaye club bi mu jugee ko di Paris tamit daf leen bëgg a bàyyi ci jàmm ba ci njëkk nag moo di mardi bi weesu maanaam talaata bi weesu la Kylian Mbappé woowaa Real de Madrid xamal leen ne leen Paris dama fiy jugee te fi ma bëgg dem moo di ci seenu club di Real de Madrid ñaareel bi moo di loolee nag dina neex lool waa Real de Madrid ndax yàgg nañu koo muy li Kylian Kylian Mbappé bëgg a def kon su amee dina leen neex lool ñetteel bi moo di waa Real de Madrid jamono ji ñoo ngi baral jéego yi ngir matal contrat wam contrat bi nag matagut waaye journal bi nee na ay détails yu ndaw moo ca des ñeenteel bi moo di Kylian Mbappé nag buggul jóge ca Paris googee indi leen ay jafe-jafe ci wàllu xaalis li mu bëgg moo di bu fa bàyyeekoo ñu wéy di nekk ci jàmm ñoom waa Paris juróomeel bi moo di Kylian Mbappé nangu naa wàññi salaire bi mu doon fayeeku ca Paris ndax kat xam na xel ne li ko Paris doon fay waa Real de Madrid mënuñu ko koo fay kon noppi na ngir wàññi salaire am su doon fayeeku 1000 francs noppi na ngir fayeeku 400 wala 500 ngir dem ci seenu club doxal juróom benneel bi nekk bi mujj moo di Kylian Mbappé bëggul dem ci Real de Madrid ñuy am jafe-jafe ci wàllu xaalis moo tax dafa bëgg a wàññi salaire ngir Real de Madrid wéy di am xaalis lépp lu ñu bëgg amal amal ko kon nag Kylian Mbappé li mu bëgg moo di bu jugee ca Paris bàyyi leen ci jàmm ak salaam ñuy wéy di am xaalis bu demee ci Real de Madrid tamit fekk fa jàmm Real de Madrid di wéy di am xaalis ci yoon woowee la bëgg a tegu bu ñu sukkandikoo ci Marca yéenekaay ñu jugee Marca yéenekaay jël as laas yéenekaay Kylian Mbappé moom it la fësal ca xët wu njëkk wa Mbappé nag xaalis dëgg moo koy indi ci Real de Madrid su fekkee dina fa ñëw loole tax na sax waa Real de Madrid ñoo ngi waajal bu baax a baax jamono ji nag journal bii di AS yéenekaay nee na Real de Madrid seenu kont bu ñu ko saytoo la ca nekk mat na cent vingt huit million d'euros loole jamono ji xaalis liquide la boo xam ne waa Real de Madrid ñoo ko moom Real de Madrid ñoo waajal li bëgg moo di abbu xaalis bu toll ci deux cent soixante cinq millions d'euros loolee bu ñu ko amee mbir mi mën naa mat te Real de Madrid nag at yi weesu wàññi na salaire yu ñu bari salaire yooyee mu wàññi bi ñu ko xaymaa bénéfice ba ñu ca am mi ngi toll ci soixante dix huit million d'euros loolee tamit xaalis la boo xam ne dina leen jëriñ ëllëg waaye ñëwu Kylian Mbappé ca Real de Madrid waa Real de Madrid bu ñu ko estimer maanaam bu ñu ko xayma muy prime de signature bi nar a fay ci contrat ba mu fay signé lépp moo xam juróom benni at la walla juróomi at bu ñu ko estime dina toll ci cinq cent millions d'euros loole waa Real de Madrid jàpp nañu ne ñu ko amee dinañu matal ay mbiram kon xaalis dëgg moo koy indi ci Real de Madrid bu dee waa Atlético de Madrid ñoom tey jii dañuy jàkkaarloo ak Las Palmas match boobee nag mën naa am Antoine Griezmann du ca football li ñu bëgg moo di noppal ko ngir mën a waajal Inter mu soxal Ligue des Champions waaye Antoine Griezmann nag yàpp na lool waa Las Palmas ndax li mu leen dugal ci ay bit mi ngi toll ci fukki bit dii bii dugal na leen ko dina football am du football loolee dinañu ca xam dara laata match bi di door waaye bëgg-bëgg bi ñu am moo di noppal ko. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Xavi mi tàggat Barcelone le journal bi fësal ca wu njëkk wa examen final tey jii nag Barcelone dañuy natt seen doole ngir yaakaar gi ñu am ci saison bi ñu nekk mën a jël benn raaya yaakaar googee am Celta de Vigo la ñuy fekki ca Balayos match boobee nag du yomb ci waa Barcelone waaye li ñu bëgg moo di am ca ndam ba noppi mën a waajal Napoli ndax kat match bi ñuy football tey jii su fekkee amuñu ca ndam rek daanaka ñàkk nañu liga bi rawatina suba nag bu Real de Madrid footballee gagné bu boobaa moom liga bi ñàkk nañu ko waaye tamit su fekkee dëgmal nañu Napoli dem ca ak defet mën naa jaxase seen xel li ñu bëgg nag moo di tey ñu am ndam ngir ngir mën a jàkkaarloo ak Napoli am ndam waaye sunu amul ndam tey jii amuñu ndam bu ñu jàkkaarloo ak Napoli ëllëgu Xavi ca club boobee dina gën a takku suuf naam nee na daf fay jugee waaye dina gën a takku suuf te Barcelone it soo moytuwul du gagné benn raaya waaye Xavi nee na tiitul ci loolu ndax président wu Barcelone mi ngi wéy di ko wóolu ba léegi Deco tamit mi ngi wéy di ko wóolu loolee la Xavi le Vitor Font tamit mi ngi ci journal bi moom ay jamono dirigeant la woon ca club boobee bokkoon ci directeur yi moom mooy wax nee na président wu Real de Madrid tudd Florentino Perez day jàppale bu baax waa Barcelone gaa ñi xamuñu loolu waaye man xam naa ko président wu Real de Madrid day jàppale waa Barcelone kàddu yooyu nag maa ngi leen di ci commentaire yi naka ngeen ko gisee. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo moom it waa Barcelone la fësal ca wu njëkk wa test de champion tey jii nag Barcelone dinañu natt seen doole ci mu Celta de Vigo match boobee 17h30 lay door waa Barcelone ñu bëgg moo di jàkkaarloo ak waa Celta de Vigo am ndam ci seen kaw mën a waajal Napoli loolee bu ñu ko amalee rek dinañu def jaloore te lenn waru leen lu dul gañe ngir wuy di am yaakaar mën a jël liga bi waaye tamit mën a dugg ci ligue des champions bi duggin bi gën seen diggante ak Napoli waaye Paris nag dugg na ca Barcelone googee li mu bëgg moo di seen gone gii di Gavi ñu xaatimal ko contrat te surnal bi nee na waa Paris ñoo ngi cay avancé bu baax waaye yemuñu ci Gavi képp ndax Frenkie de Jong it waa Paris dañu ko bëgg te moom tamit bëgg-bëgg bi ñu am moo di ko contrat kon nag Paris li bëgg moo di tabaxaat milliers de terrain wam boobe waaye ñaar ñi ñu bëgg ngir tabaxaat milliers de terrain boobee nag ca Barcelone la ñu nekk muy Gavi ak Frenkie de Jong loole la journal bii di Mundo Deportivo xamle ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Inter ak seen doole ju bari la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa bi nag da leen di njukkal bravo dix plus yokku nañu nag point yi nga xam ne moom la ñu jiitoo Juve jamono ji fukki poñ moo dox seen diggante Salernitana lañ doon jàkkaar lool duma ko duma yu miti ñeenti bal ci dara bu dee Yuufe mi topp seen ginnaaw moom tey jii la ñu war a football bu 17h jotee Hellas Vérone la ñuy jàkkaarlool Maximiliano Allegri nag li mu bëgg moo di taxawee nii muy 3-5-2 waaye ñaari gone yi moom yaakaar na leen lool muy Vlahovic ak Yildiz te nee na gone yi ma am nag li ñuy def mën nañu ko lool loolee li koy firndeel moo di su ma leen bëggoon jaay mën naa am ci ñoom cent dix millions d'euros loolee la Maximiliano xam xamle waaye laata ñuy yegg ci 17h bu 14h jotee Napoli dina jàkkaarloo ak Genoa match boobee nag li ca waa Napoli bëgg moo di am ndam ngir mën a waajal seen match bi war a dox seen digganteeg Barcelone loolee la journal bii di Corriere dello Sport le ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport wa Inter la surnal bi fësal ca wu njëkk wa démb dañu doon jàkkaarloo ak Salernitana bu ñoom Boulaye Dia gañe leen ñeenti bal ci dara match boobee nag kenn du ci ñi may waaja lim Marcus Thuram Lautaro Martinez ndax ñoom ñaar ñëpp doxal nañu te ñaari bit yi ko dugal Dumfries dugal na ak Marco Arnautovic ñu am ndam lu ama am solo nag jamono ji noppi nañu ngir jàkkaarloo ak Atlético de Madrid match boobee mardi la soxal huitième de finale Ligue des champions aller journal bi tamit ñëw na ci waa Paris ñoom nag dañoo bëgg ku remplacer Kylian Mbappé te ca mbir moomee ñaar ñi nag nekk ci Serie A ba ñoo ngi leen di bàyyi xel muy Victor Osimhen ak Raphaël Leao bu dee Raphaël Leao moom waa AC